abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door saa ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci dikkati na ndeke yoo ñoo ngi seetaan filaawooy ca géejawaay ña ngay gor di joxe tribune yéen a kaay naan maan bugaan ngay dani nee na saraax ci géem bi xanaa saraaxati kay fas yéene nag moolu boppam te naan suboo xun ma la soo xam ne ña ngi koy jël caxat-caxatee alaluk askan wi di ko jébbal nag ay nit di leen neexal ngir ñetteel bi mandat manaan tribune yéen a kaay nga ne yéen a kaay bi dee média bi naan maan dégg nga kay bugaan ngay dani nee na band filaawooy nga xam ne moo nekk ci diiwaanu ndakaaru président Macky Sall jël ci juróom ñetti million mètre déggoo ma de juróom-ñetti million ngu mètre carré ci bande filaaw bu géejawaay bi fas ko nag def ci campagne ngir am ñetteel bi mandat Sall ngaari lam tooro yaa mën yaa ëpp doole le regard yéene kaay naan kon lu toll ci juróom-ñetti téeméer ñaar fukk ak juróom benn ci hectare nekk ca filaawoo ye moom la président Macky Sall daal di déclassif le peuple yéene kaay naan kon suuf si fu mu jëm bugaan géy dani ci 24 heures yéene kaay naan kon xanaa kay campagnal président Macky Sall dañ fas yéene ci alal joojee l'évidence yéene kaay naan maan bugaan géy kaw président Macky sàll naan gannaaw ba muy tongtongee suñuy xel ma ngay tongtongee suñuy suuf moom sàll ña nga xam ni nag ñoo dëkkee fi mu ne di xeexal géejawaay waaye tam di xeexal suufam soo xam ne ña ngi koy caxat-caxatee am ngeen liggéey wala décret ba génn na 2003 813 lañ ko duppee bu 5 avril 2003 tax ba juróom-ñetti téeméer ñaar fukk ak juróom benn hectare laa ne Sall teg na ci loxo ñu tibb suuf soo xam ne boo moytul Tiwaawoon pël lay bàbbee dem Kër Masaar beneen bi jugee yëmbal noor dem Malika jaar Tiwaawoon bugaan nante bu mu bett kenn de ndax fukki weer moo des ñu daal di àgg ca présidentielle ya te président Macky Sall defa ngay ci nguur gi ñetteel bi manda wala dara mu daal di teg loxo rond point gaddaay jaar yëmbal teeri jee malika ba tiwaawoon pël loolu lépp nag Sall sabab gi lan la xanaa séddale lenn li ñenn ñi nga xam ne nee ñu troisième mandat la ñu bëgg Sall def ko la ca des nag mu xool nees def ba troisième mandat am gii mën a sakkan ci réew mi tribune yéene kaay naan man Sall ngay tibb fii Sall ngay jébbal ay mbër ay million ngir ñu jàppale ko hôpital Albert Royer bii ndox ci boppam mi nga xam ne moo gën a yomb amu fi l'observateur naan kon xanaa mu jënd pompe université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi fanaana turu ci néeki ndax i mat ci couloir yi la étudiants yi di fanaan tribune yéen a kaay naan kon coow laa ngi de yitteeli ci réew mi moom mooy ñetteelu candidature bu président Macky Sall bi jar na sax ma ne la ñenn ñi daal di wor xoolal ma ña nga xam ne ñoo fas yéene jagat-jagati dem ca dialogue ba seen droit civil lañ leen saxalee bokkaat ci élection ngir ñu daganal ñetteel bi mandat waaye coow la mooy Idrissa Wade Khalifa Babacar Sall ndax nag sénégalais dëgg-dëgg gëmati nañ leen te buñ leen amnistie ndax du Sall moo cay am ndam ndax ña nga xam ne tuumaaloon nañ leen ci corona ba te la ñuy muccee fa yàllaahu waxtu woowu nag ma ni la xob Karim ak Khalifa xalaatuñ ko am ci réew mi critique yéen kaay naan man dialogue baa nga yàq diggante conseillers municipaux yi ca ville bu Ndakaaru ni ki démb dañoo boycotté Barthélemy Diaz yéen kaay bi naan man Sall ñetteel bi mandat la gis moom la bëgg te ñetteel bi mandat société civile ak opposition mayuñ ko ci dara ña ngay tuñ tuñee Sall ngaari lam tóoro fu ne muy teg tànkam président Macky Sall xamatu ko ay jëwrinam nag ña ngi koy jéem a défendre ku ci mel ni Mame Mbaye Niang Doudou Ka Abdou Karim Fofana Moustapha Ba Abdoulaye Seydou Sow Pape Malick nduur soo ci génnee ñii la des ca gouvernement bu Amadou Ba day waxuñu ñu defuñu ña ngay seetaan Sall ak i combat am le point yéene kaay naan man Thérèse Faye Diouf ma ngi ca xeex ba ma nga naan président Macky Sall dana dem ci bunt bu màgg bu kawe ba waaye nag 2029 lay doon bu joyantee réew mi ba nuppi l'exclusive yéene naan man ba diwaanu Fatick laa la ay ndaw ña fa ngembul sàll naan kon beneen juróomi at moom da nga koy am ci réew mi keroog ca salon de l'emploi ba Meïssa Fall ak Adama Diouf bu jeunesse républicain département bu Fatick nee ñu fi mu ne président Macky Sall kese kepp candidature am bi moom day jàll ci réew mi lu ko mooy làmbaay ñaaw critique yéen a kaay naan en tout cas ña ko war a ngembul ngembuluñ ko moom Sall tribune yéen a kaay naan kon waa COJER day ngembul nañ ko nee ñu wooteeb S24 ba ku leen fa dëgg na ni leen massa fas nañ yéen a nag woo ndaw yi ñu daal di génn xam leen ni président Macky Sall daal mooy seen candidat Moussa Sow ak waa Koger ne wooteeb Duudu Ka bi dañ cay dem wuy ji fas yéene amal ndaje bu rëy le 3 juin bii ngir nag wan askan wi ne Sall ngaari lam tooro moo fi ne wala te bu dee mandat rek ndaw Koger yi fas nañ ko ko yéene jox l'observateur naan ñoo mën toppandoo waa APR S24 ñu toppandoo troisième mandat moo gën a wër toppandoo challenge bu bula bi toppandoo foo leen fekk daalu opposition bi def ba noppi la ñuy defaat ñenn ñi nag di ci gën a sax ngir neexal tex tex may ree Sall yeewul ña lay xeexal ñooy say nit libération yéene kaay naan maan xeex bi daal daal dinay tàng lool tribune yéene kaay ne ko ña nga jëm ci àtteeg suite botili journaliste bii di Serigne Saliou Gueye convoqué nañ ko Daouda Gueye bu frappe ñu daal di koy jàpp libération yéene kaay ne Serigne Saliou day xam ngeen luñ ko woowee benn texte boo xam ne dafa génn ci journalam bii di yoor yoor contribution sur soit naan maan waxtu woowu day bañ dugub kenn seenu ko gisuñu ko sax ca cité kër góor gi maître Ousseynou Ngom ci l'enquête quotidien naan Ousmane Sonko dafa jotul convocation kat le quotidien quotidien ne la mu waxoon ca la ne moom Ousmane Sonko ci ne acam sunu système judiciaire bi désobéissance la Sonko woote ba démb démb yéen kaay bi naan man Ousmane Sonko bàyyeekoowul Sigicoor l'info yéen kaay naan man rax ci dolli patriote yi naan nan génn ci mbedd bi xeex l'observateur naan la mu jàppoon day jógu ca benn yoon moom Ousmane Sonko le témoin yéen kaay naan kon waxtu woowu ndakaaru day daanaka kenn noo yeetu fi las yéen kaay naan en tout cas lim def nii moom Sonko risque la Walf Quotidien naan en tout cas nee na sunu justice sum réew acam ñëwuma dikkuma ña nga xam ne ñoo na ca ñagis day ña ngay dal ci kaw Ousmane Sonko naan kon dañoo bëgg nga bàyyi Victorine Ndeye waa LD Debout naan Ousmane Sonko boddi kon tey xeet lay def ci réew mi tribune yéen kaay naan mën a coow li coow li mooy bu ñu xeexee ay bakkan faatu ci te ca mujjantal ba ñu relaxé Ousmane Sonko nag ndax coow li boo moytul nag moom maire sugi coor la dal Sitor Ndour mën na koo dal ñu daal di jagat-jagatee jagat jëmale procès buñ demee ba ca prose ba saytu daal di ne ko defoo dara bàyyi ko mu ñibbi ko di jee naan maan boobu day parti socialiste ma ngay xar ñaar Serigne Mbaye Thiam moo dem leen ca seen ndaje ba mel ni ku leen xeeb def fa cu capp maane xas ko ba mu ràpp naan kon conseiller municipal sax mënoo ko doon te loo am tey bay tiitaru parti socialiste moo la ko may tribune naan maan réew mi jaxasoo na nag konku dëgg liggéeyu jàmbur xoolal ma chambre de commerce bu ndakaaru gannaaw ba nga xam ne union bu chambre de commerce dañoo def la leen saf ñoom it chambre de commerce bu ndakaaru def la leen saf taxawal nan seenu bureau parallèle neenu ñoom it am président beneen bu yees Abdoulaye Sow mi nga xam ne dafa weñ loxo taxawal union bu yees moom it weñ nañu chambre commerce bu ndakaaru boo xam ne jiteetu ko Abdoulaye Sow nekk tëggukaay bi ñu koy tuñ tuñal mu def lu ko saf ci boor bi gars yi def ko ñoom it la leen saf ci boor bee waa grand place naan man fi mu ne day Aliou Sarr ku koy natt xool ko ci Khalifa Ababacar Sall la daloon xaaf ci parti socialiste moo ko dal ci biir AFP maire bu nooto jabaas bu cap 24 niki noonu it maire bu woon bu taxaw senegal fi ne day wàllu démocratie sociale ëllëgëm ñëw ko téye seen loxo ndax la nga xam ne nag seen parti ñoo ko doon nangu bañ nañ ko fi mu ne ngémbu la wax mu yëngal gaal la ñuy wax Aliou Sarr naan président Macky Sall ñaari mandat bu juróomi at doy loolu la ñu gëmoon démb gëm ko tey te ëllëg moom la ñuy gëm waxtu woowu Khalifa Babacar Sall naan dañuy def résistance ci lépp loo xam ne mooy caxat-caxatee bi nga xam ne APR war na ko caxat-caxatee suñuy ngëm libération yéen kaay naan man mën ngaa tëj de wax ci xale bu góor bi nga xam ne moo doon ndax ndekete lesbienne yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi dafa yor profilu xale bu jigéen bu jekk xool jigéen ñi nga xam ne seeni moroomu jigéen la ñu bëgg di leen doxaan fexe ba am seeni vidéo bés bu ko ame nag tàmbali nag di leen